mbikum Guy Marius Sagna gaañi fañ koo bëgg a sànk gouvernement bi na leen wóor na lépp lu ko dal ñoom la du samay kàddu nag kuréel yi xeex ak ak yelleefu doomu aadama ñoo ko wax nikki démb bi ñuy amal janook taskatu xibaar yi yaw seetal rado ak yeneen yi ni mel ne nañ jóg nañ taxaw ngir jàppale Guy Marius Sagna bi nga xam ne la ko yóbbu ca kaso ga du dara lu mooy wàllu yoon te yoon ci Sénégal nguur gi moo leen di wax defal ñu def rek makke gaay ba tax vox a xeex bi ngir ñu bàyyi Guy Marius Sagna mu génn ci kaso ga kuréel yi xeex àq ak yelleefu doomu aadama neneen fa ñuy kalaame Macky nguurug Sénégal ca CEDEAO ak mbootaayu xeet yi ONU fa ñaaw trop waa grand place yéen a ne droit de l'homme si soobu nañ ca xeex ba ngir ñu bàyyi Guy Marius Sagna 24 heures yéen a kaay na Macky kay fi mu toll ni nag xam na problème société civile ak droit de l'homme yeeg opposition beeg askanu ñëpp a ñu daal ci kawam ngir mu bàyyi Guy Marius Sagna ci du quotidien ne yàlla xam doy na réew mi niñ ko yoree doy na waar lu neex waaye def te dara du ci fekk su fekkee nguur gi nga ànd wax nag xeex wàllu corruption bi ger gi fees dell ci réew mi yéen a kaay bi na lii daal bokk na ci ay mbir yu doy waar yu mag yore réew mi Maurice John di ab jàngalekat ne neexut a dégg waaye Sénégal démocratie gam amoon baaxoon na jaar yoon waaye fi mu toll nii suñ démocratie gi xam ci réew mi fa deltu gannaaw de Le Soleil yéen a kaay na leen bàyyi leen li ngeen di wax xanaa xamul leen suba ci àjjuma ji waa Cour des comptes danañu jébbal njiit réew Macky ñetti rapport yoo xamante ne niñ yoree réew mi képp kuñ dénk alalu réew mi lépp loo ca def lu jaarul yoon danañ ko wax Macky loolu du démocratie Walf a kaay mel ni ku naan ko Macky nag bu jotee rapport yooyu ba pare fan la nar a mujj nga foog nawoon fa woon rek danañ wax ne épingle nañ diw diw def na lii diw def na lii ba pare ñu jël këyit yëpp teg ca taabal ba benn daan du ca topp kon loolu xamul njëriñ di te moom Macky sax li mu war a lijjanti dëgg-dëgg mooy Macky 2012 am bële fi mu toll ne xar na ñaar a seetal aji mbergaan kanute ca Kaolack ndangaan bokk Macky 2012 kajji nañ ko daq futbal ca biti moom Mouhamed jaañ wal fajiri na kaay na kon léegi ñaari Macky 2012 ñoo xam ndax ñoomi taxawal nañ seen bu bopp nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njiit réew Macky Sall ma ngay lijjanti lépp lu jëm ci wàllu génne gaz ak pétrole bi ci Sénégal le quotidien yéen a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom les échos yéen a kaay mooy ne kër avion ga ñuy wax raam fekk baax réewum Maroc mi ngi sàkku ci réewum Sénégal rawatina aéroport Blaise Diagne ñu fay leen ndàmpaay ñetti téeméer ak juróom fukki million ci suñu xaalis fii ak ñaari weer nag la leen appal yéen a kaay bi ne kër ga yor doxalinu aéroport ba muy waa laas ñoo ko war a fay li tàkk Sénégal te war fay nag dëgg dëgg dëgg mooy rey gu bari xale yi jigéen yi agressé doomu aadama yi ba tax enquête yéen a kaay xëy na fitna gi ci réew mi jéggi na dayo dayoo ñàkk kaaraange gi foo ko natt weesu na ko Birahim Seck bu forum civil ne nañ waxante dëgg takk der yi ci Sénégal police ak gendarme ak alkaati yëpp dañoo manqué ay jumtuwaay manqué ay élément nit ba pare ñu bëgg ñu def ay résultat bala nga naan naam ne fa xanaa xamu leen ne takk der yi léeg-léeg essence bu ñu def seen oto yi di wër dëkk bi ngir kaaraange gi léeg-léeg essence ba sax duñ ko am te si jamono jooju député yi ñoom ñu ngi leen di jox essence bu du xaaj koo dugal ci kaaraange ngi ñoom farata lañ xamul ci sunna rek lañ nekk nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na dorog bi ñu jàppaat bu yàggu dara ca port bu ndakaaru traficaaya fa ñoo soppi doxalin te rewet ñu jàpp leen juróom-ñeen fukk ak ñaar nag ci ay milliards suñu xaalis ci la yëf moo ñu ko xamal l'observateur na ko gaa ñi fañ leen au téléphone ci la ñu jaar ba jàpp leen ñi jàpp fas yéene amal débrayage tey ci alxamis ji mooy jàngalekat yi bootu ci fédère kenn ci ñi ko jiite mbay saar ci l'évidence yéene kaay nee suba tamit ajjuma geraw total la ñuy xamal ngir sàkku gaa ñi gaawal ak la ñu digoon ñu def ko la ñu def ñoom àttekat yu tribunal bu Kaolack ndangaan mooy sëriñ daara ba ñu tegoon loxo Cheikh Baye Niass dëkk ci Medina Baye bàyyi nañ ko mu ñibbi këram ñaari at yu ànd ak sursis lañ ko daam l'évidence yéen a kaay ñi ko xamal ci fàttali ba ñu gàmmoo ba noppi la ñu waxoon ne la sëriñ daara bi daal di jéng taalibam ba Baye Thiam Ahlan ak sëriñ daara yu bari dem nañ ca tribunal ba ngir jàppale ko waaye leeralal askan wi ak kilifa réew mi ne daara moom xam na loo xam ne mënu cee ñàkk kon nañ bàyyi sëriñ daara yi ñuy sonal ka jàpp a kaay bi ne bu ñu mënee jàpp kay band yeeg raykatu nit yeeg agresseur yeeg jàppi ñooñu jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi mel ni ku leen di tontu ci l'évidence yéen kaay ne pourtant ñu ni loolu ñu ngi ci de ñu ngi jàpp defkati ñaawteef yi ndax lu toll ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent bandi jàpp nañ leen diggante Dakar Touba ak Kaolack ndangaan nay leer la na dàng ñi janttu subaar ci leeraay mooy xam na ay professeur yuy tekki seen ba tànk ci enseignement supérieur direct news moo ñu ko xamal la mu xamal moom laa si yéen kaay mooy ku jégu métti ci biir syndicaliste yi ba tax Cheikh bu CNTS FC ma ngay yuuxu wàllu ne loolu baaxul si ñoom leen di néewal doole nañ ànd nekk benn tàggat yaram Bouna Sarr bu Marseille na d'accord na ñëw football Sénégal stade yéen a na loolu dana baax ci Aliou Cissé li baax ci Ama Baldé mooy dem na France ngir waajal combat a ko xamal moom les échos yéen a kaay mooy na Luc Nicolaï ma ca kaso waaye doomam ji ñëw na ak doole wéyal liggéeyu baayam CNG jox na ko licence promoteur combat Modou Lo Ama Baldé moo ko nar a doxal presque sowee na ko face à daal moo ngaa ñaaw sénégalais sonal nañ ko trop nee na man rafet naa te xam naa ne rafet naa ku jàpp na nag maa ñaaw ba ñàppaaral kooku sa affaire la pourtant man ñaaw ma de xoolaat leen ma rek bu baax li baaxut te ñaaw lool source ay yéen a kaay ñu ko xamal benn médecin ak infirmier ku ko doon jàppale ñoom la nu jàpp ginnaaw ñu doon yàq ëmb allah la ca garaaw nag mooy ëmb bañ doon yàq xale ba ca mujj judd lu jigéen la fa mujj faatu ndeysaan la fa mujj